Yaman, salam alaikum amis téléspectateurs de la télé passionnément LCS. Alors euh, on se retrouve encore comme tous les samedis à partir de 16h. C'est émission sur nos sites. ñëwaat na euh, tey ñi ngi fii si Rio c'est si benn ndaanaan bi nga xamanteni ni beaucoup de na ci ndaanaan également mi ngi tuddu Mr Buzz Buzz mi ngi nekkoon ci groupe bi ñuy wax euh, jotaay bi bu Rio Génné deux albums sur le marché après mom ci la ñëwaat ak album solom si 2015 bi ni génné ko intitulé Sen Système donc dinañ waxtaan ak mom lu bëree bëri c'est rubrique également maa ngi biir di ngeen ko amaat tey ci émission bi ak buzz fii ci Rio donc amis téléspectateurs de la télé passionnément bienvenue dans sunu site fii ci Rio ak buzz ak albumam seen système. mais yow est-ce que di ngay dawar voiture nga permis <laughs> waaw voiture bon dawaluñ ko mais am nañ fitam ñeme nañ ko ndax bi ñuy nekk xale. Mm-hmm. Euh, ay wëtiir lañ doon fooye maanaam ay fas parce que amoon nañ ay copains xam maam ay ay ay ay borom fas lañ woon ñu daan ci ànd ak ñoom di ci jaabali di def si lu ne maanaam wàllu course fas mhm. wëtiir aussi dawaloon dawalantu nañ ko daal mais mosuñu doon koose nag mais dawalantu nañ ko ba taay LCS bi moo fa nekk léegi ah booy dem tournage dañ lay jox voiture man bi LCS la jógee matricule boo ko xoolee LCS. waaw déet waay waaw mais lii la <laughs> maa ngi lay bëggee nag lu bëree bëri. ñu ngi lay bëggee bu wér ak waa téléspectateur téléspectatrice su LCS yëpp ñu ngi leen di bëggee mm-hmm. yëpp. alors Buzz maa ngi koy wax sànq sama introduction ah, bu ñuy fàttaliku ah, yaa ngi woon ah, ak jotaay bi bu Rio groupe boobu mi ngi existé ba léegi wala ana gars parce que deux albums ngeen jot am après c'est vrai que ne jot ngeen def ay tournées yu bëri bokk ngeen ci ay compilation mais après l'eau yow aussi 2010 bi len la gis ak say single nga ñëw en solo ana groupe groupes waaw groupe bobu mu ngi fi ba légui c'est que xam nga yalla dafa def euh, ñu defee deux albums après en 2005 yalla dafa le ñu am ben contrat ak ben label bu pour euh, les genre école des arts la quoi buñu wax Art Crit Live bu aux États-Unis Washington

Euh, aux États-Unis euh, def fa 40 jours ñibbisiwaat si waat ak groupe bi ak groupe bi waaw yàlla def moom mu dem ba xamante ak euh,

ay parents am ay ay marabu lañ woon famille omarienne yi la bon moom après affaire bi récupéré na ko quoi léegi muy dem entre Maroc di dem di ñëw léegi ñun ñett ñoo fi des quoi man maa ngi sur sur Dakar Sénégal pour àggali mission bi mais album bi sax boo ko gisee album mu groupe bi la woon mais après benn instant puisque man dafa am lu bëri lu ma yëgoon ci album bi man ne woon leen benn instant man man ñaanon na su fekke man ngeen mako ko defal ngeen may ma ma def ben album solo pour génne li nek sama dënn parce que denc na lu bëri lu mo wara a mën après gars aussi franchement ñu accept acceptel mako ba paré jàpp ci liggéey bi bu baax ñu def ko donc lool moo tax ñu def ko mais jotaay bi ci boppam mu ngi préparer album bo xamné international la pour groupe bi quoi. pour groupe bi lay doon mm-hmm. mais bi ni en solo la yow kessé nga def. effectivement bi en solo la parce que li tax ma yok ko def moy euh, euh dafa am ben concept bu ñu bu ñu doon xex accepté au début parce que boo seetee euh, pour ñëwaat tuuti ci ginnaaw 98 euh, 96. boo daan boo daan enregistré à Dakar boo seetee benn studio moo fi amoon hip hop quoi bu ñuy wax hip hop mooy euh, sama flavor ñoo fi nekkoon boo seetee rappeurs yëpp foofu lañ daan enregistré ba pare boo fa baan bëgg enregistré album da ngay rang parce que da ngay ñëw fekk euh, day fees liste bi léegi da ngay toog euh, ñu programme la pour un mois wala deux mois pour nga mën a ñëw enregistré parce que artistes yëpp fa lañ doon enregistré boo seetee aussi ñoom ñoo fi doon liggéey liggéey qualité jamono boobu que album yi ñu def yëpp boobu bon léegi nag si loolu aussi da daan métti quoi da amoon dafa amoon métti carrément ci loolu man si biir loolu ma jàngat ci lu bëri ma ne man vraiment benn métti woon na parce que da ngay ñëw pour enregistrer dafay métti ñaareel bi aussi boo ñëwee doo am le maximum de temps pour enregistrer quoi parce que benn instant dañ lay xaw a. c'est normal parce que boobu affaire évolué wu loolu carrément loolu laa jamono jii ni problème boobu amul. merci ma si lu ma mooy ma ne man un jour vraiment rêve naa demee bay defaat album yàlla defal ñu ko ñu def ko Rio quoi Rio aussi am studio boppam am ko di ko faay faay boobu moom moo waral sax gars yi gën a accepté album solo bi ma def nii parce que dama noonu bi su may defaat album dama koy def si Rufisque wane ne Rufisque aussi am na dara parce que Sénégal du Dakar quoi ci la taxawal euh, label bi nga gis ne muy Infini Positivity Code bi ma ñëwoon fekk ci ko épaulé amul man ma ko mu waaye man xam naa ne tu as talent et man dama bëgg ñu liggéey album album la quoi te wóolu naa la gëm naa la jox ko confiance quoi ne ko mën nga ko def donc mu jël confiance aussi ñu liggéey ko ci deux ans ci biir labelu fi bi ñu koy liggéey fii instant boobu mën naa ne dama fi daan toog toute une journée doo fi gis kenn ku dul man ak moom tey studio bi yaa ngi gisal sa bopp nit ñi dañuy dugg di génn dèjà léegi nii dañuy commencé dañuy gis ni dañuy dugg di génn Rufisque tey lépp lu ñu fi enregistré booy fii lañ koy defee donc man concept xeex boobu dafa bokkoon ci album bi pour am ko duplication bi aussi waa doomu Rio la vidéo yi ay doomu Rio ñoom ñoo ko def donc xeex boobu moo tax nag gars yi bi ñu ko déggee ñu ne ma vraiment ñun bàyyi bi parce que gis nañ ne voilà studio bi sa la moom yaa ko non non pas sumi studio bopp c'est man ak moom ñun ñoo ko teg xam nga liggéey quoi en tant que côté artiste man ma fayet ci moom aussi mu fayet ci am yeneen bureau yu si dégg ñeneen ak ñeneen ma nga xam ne ñoom ñooy old school yi fii si Tëngéej ñoom ñooy ñëw ñu sot affaire bi pour fayet ko mu taxaw quoi. donc mu nekk benn initiative bu naan ah, sàngat ngay ngay ngay xeexal pour Rio ba léegi tam mu bokk ci affaire bi te gis nañ ne euh, hip hop bi tamit macha allah fii gars am nañ ci wàll. Mhm. mais man yi raw nañ leen parce que ba ngeen demee ba léegi ak seen deux albums yi compilation yi def un tour euh, yenn régions yi dem ay Diourbel Fatick Kaolack et consorts mais après gars yi dañ def benn pause bu ñu ñëwaatee ak album solo yi yaakaaroon ne seen place bi ñu amoon fii. non pourtant ñàkkuñu ko parce que boo seetee ñoom ñu ngi ñu tout temps ci euh, hip hop galsen bi parce que xam nga boo gisee gars yi des fois ñuy déconnecté mooy en Europe réalité bi fa réalité Sénégal du benn Afrique bi euh, laay wax sax parce que euh, foofu tapa le temps comme ni ngay toogee ni naan caan waxtaan di sympathiser ak say gars foofu amu fa benn immeuble bi nga nekk di nga fa dëkk ak nit des yeux doo xamante ak moom parce que foofu vif vif la quoi. loolu na fii. am na différence parce na naan caan am na yooyu sympathie bobu amu fa fofu boy laaj nit sax dala nan xamul quoi da ngay lire da ngay lire bo mënul lire am nga problème comme niñ lay expliquer fi jël temps di la wax donc lolu aussi bo topé rythme bobu yow da ngay dem ba da ngay déconnecter Sénégal parce que dootoo xam réalité ji bi la preuve bo xolé gars nek fofu pour ñu pour ñu connecter waat Sénégal da leen di jaral ñu jël avion ñëw ba fi pour mëna def benn 1 mois 2 mois pour copter waat réalité bi touti pour mën ko liggéey donc gaay aussi ñom ñu ci parce que dañuy dem de temps en temps di dem di ñew et puis li ñuy liggéey ñu ngi koy liggéey ñu ngi laaj Thiathia bi fi ñu ngi ci net bi ñu ngi fépp pour xam donc raw amu fa parce que lima la wax ni album bi ñuy préparer ni bis bu génné di nga xamné raw amu fa quoi peut-être euh, euh, euh, mode nak day am période bi musique bi hip hop bi amna fu mu tollu gaay créer nañ ben mode manam muy muy mode Daddy saus gis nga ko dafa bari ci dëkk bi quoi gaay ñu koy def c'est bien beau dafa da day gëna yok hip hop rek mais hip hop aussi dafa am réalité dafa am racine racine bi mom bo si jappé racine. ba léegi loolu la ñuy def te ba ñu ngi xew ba léegi du ñu mës a xewi peut-être nag mot dina ñëw ay arène bi ay nangam ak nangam yooyu mënu si ñàkk mais toujours racine bi yow toog ci rek boo ci toogee peut-être yow yaay créé style musique bi yow yaay créé technique bi yaay créé flow bi ok dina nice pour album bi mais terewul racine bi carrément yow toog ci quoi sinon boo si toogul demee mot bi bu ñëwee day jàll bu jàllee toujours da ngay jéem a créewaat beneen affaire donc foofu laay waxee quoi moo tax ma ne loolu boo si toogee doo mës a fekkee ne tamit album bi ñëw na c'est vrai ah mu nekk album bu am dimension mu tudd seen système euh, man déjà li ci li njëkk a apprécier liggéey bi mooy que comme ni nga def parce que si ñi ma koy njëkk a ñu koy baaxeel parce que tamit def loo xamante nii pour jaay sa album c'est important ma gis yow euh, gëdd bi nga jox album bi def promotion bi ci war même sortie avant sortie bi ak sortie beeg yëpp da nga defoon ay caravane di def yenn affaires yi et tout cela moo bëggoon nga ñëw ak tuuti ak téléspectateurs xam euh, ci aspect boobu noonu parce que xam nga tey boo seetee aux États-Unis tey euh, rappeurs yi gën a mag foofu wala xoolee dañ ko bëgg repère quoi yow waaw waaw non c'est que bu tax ñu ñuy def ko repère c'est du repère sax c'est xam nga mbir looy def rek il faut nga am foo foo xëccee tuuti pour mën def mais teral aussi yow booy def defal lu naturel defal li nga xam ne moom mooy sa réalité dëkk xam nga mais teral aussi nga créer ay ay ay ay yooyu moom moo lay jàllale c'est-à-dire tey ñooñu dañuy wër man gis naa benn benn benn crew bu ne boo xamante ne ñoom Euh, dafa am benn concept bu ñu teg boo génnee album doo dem télé doo dem rajo da ngay génn sa album taxaw ci mbedd mi jaay ko jaay ko ba am benn nombre vente bi ñu lay soog a télé wala rajo loolu loolu baax na parce que day wane sa xarañte day wane sa bëgg li ngay def ci affaire boobu day tax kooku demee dina xam ne facilité luñ ko dara donc fii aussi man dama ne woon su ma demee bay def album parce que boo seetee fii aussi mus Sénégal musul am producteur. fii producteur li tax ñu ko wax mooy yow dañuy ñëw da ngay ñëw ñu la ñoo la produire ok nga signé contrat bi parce que suñu premier album Talla Diagne lañ ko defal suñu deuxième album aussi pareillement moom lañ ko defal mais da ngay signé contrat bi ak ñoom album bi génn ñu bàyyi ko Sandaga léegi yow yaay wër di def say promo bopp pour gars yi dem jëndi album bi te boo ko seetee bu ñu ko jëndee ñoom am nañ ci benn pourcentage ki koy jaay ba pare ki koy produire aussi moom mooy jël leneen neen peut-être yow doo ci gagné dara te boo seetee yaay topp sa promo tey nag différence yi mooy producteur boobu amu fi léegi yow yaay doon sa producteur bopp. pour pour lan pour lan producteur boobu am fi mais mbalax mi ngi am ay producteur ñu ngi produire mbalax mi ngi non mbalax bi moom amul producteur producteur dee ko dégg rek c'est que moo tax lan mooy problème te pourtant musique baa ñuy wax producteur ah, li ñuy wax producteur non kooku kooku kooku beneen affaire la kooku li tax ñu koy wax beneen affaire la donc yow boo seetee nga defal sa bopp sax mooy li la siy génn parce que tey boo seetee album bi ñun bi ñu koy programmé liggéey nañ ko si ans bi ñu koy liggéeyee préparé woon nañ concept vente bi parce que tey damay conseillé waale gars yi seetaan ñi nga xam ne nouveau yi si nouveau lañ ci hip hop bi maanaam euh, nouveau génération bi laa wax new school yi euh, ñu jël si loolu repère parce que tey da ngay defar sa album bon euh, boo ko tegee da war a teg benn concept ñu bañ a copter rek ci public hip hop parce que boo gisee hip hop bi euh, tënku loolu la parce que gars yi dañu jël hip hop bi jël ko ci teg ko rek ci milieu hip hop du loolu musique boo koy def dafa war a vaste da nga war a yaatal paa bi mère bi ba marabu bi sax dafa la war a déglu dafa mais xam nga sànq yaa ngi doon wax naan hip hop boo koy def na nga resté si racine bi yaa ngi doon wax sànq fii nii yaa ngi wax bi tijji bi non racine bi racine bi concept musique mooy racine bi mais vente bi hip hop waxul nga dem jaay ñi déglu hip hop kese dafa la ne nga jaay maanaam booy booy distribuer war a éveiller conscience su ñëpp. voilà donc. donc loolu y a problème parce que bu fekkee ne da nga concept hip hop ngay def hip hop. Mm-hmm. te bu fekkee man du ma hip hop nga bëgg ma jaay li nga xamante ne pour cent hip hop la mun naa ko ba ñuy jënd. waaw c'est xam nga 100 pour cent hip hop euh, buñ ko waxee. concept hip hop bi la mais du question ci euh, ci ci ci ci liées bi c'est-à-dire tay mën nga tek hip hop par exemple bo dégloo sama album euh, a une version slam mais am na mag ñoo xam ne slam la ñuy parce que mag ñi du question du ñu hip hop de c' wax bu gaaw bi waxu code bi du comprendre li ngay expliqué benn instant ñoom dañ naan kon du du du idée léegi. loolu kañ nga ko xam en 94 ba ngay jotaay bi yooyu yooyu. découvrir si parce que boo seetee album hip hop yi doon génn. paroles yi da doon leer nañ da doon dégg li yi di wax moo taxoon gars yi mag ñi di consommer hip hop la preuve da nga daan même même gars yi def théâtre dañ doon sax imité ci hip hop li ñuy da doon leer quoi peut-être benn instant mën nga codé mais pas nga codé album bi yëpp am na ay textes yoo xam ne ay sons yoo xam ne mën nga ko codé pour sa public mais aussi nga sóoraale public bi nga xamante ne ñoom du ay hip-hopeurs mais askan bi la ñu bokk te da nga leen war a éveiller seen conscience donc ñooñu noonu aussi laaj na nga kii leen moo tax tey boo seetee ñun suñu côté vente bi ñu ko defee dañu génn ñooy dañuy impliquer population bi yëpp âge yëpp muy troisième bi deuxième ba si premier bi ba pare euh, yaatal ko aussi ci autorité tay caravane bi def fi c'était pour une semaine mais si bir caravane bi euh, def nañ ventre, euh, le mur de la ville les trois maires d'arrondissement le président conseil départemental et les préfets les commissaires ñi nekk fi ñep jaay nañ leen jaaykatu tiaf bi jaaykatu kecax bi ki si boutique bi ki si robinet bi ñep participer nañ ci. dañu am réduction jaaykatu caaf beeg jaaykatu kecaaf dañuy pas réduction <laughs> non c'est que participation parce que tay da nga gis benn kuréel boo dañuy ñew même bu fekkee né 100 personnes lañ sax wala 10 personnes lañ bu ñu jëndé ben album sax juste symbolique la quoi manam participer nañ pour ñep donc ñun xex bobu lañ ko doon défé te tey réussir nañ ko Rufisque parce que buñ ko défé gis nañ né suñu premier tirage bi ci 2 jours dafa jeex ñu defaat deuxième tirage jeexalaat ko jour bi ñuy clôturer euh, ak mini concert ci ci ci ci ci ci euh, caravane bi dañu amoon problème mu tirage parce que dañ doon jouer gaay di laaj album bi parce que jeexon na instant donc lolu kon ben door lo wax réussir na ma ci jox idée kep kuy def hip hop wala lo meuna def na nga préparer lolu démarrer ko ci ce secteur parce que am na solo quoi. def promotion bi def ay caravane wala ak noko muñ munti defé ah fexel def. Euh, promo le maximum de promo. yeah ok donc mais légui gis né dañuy dem xol directement sa deuxième vidéo bi nga génné yaay mu ngi nek ci euh, tax mu gaañ la yaay booy maa la yàgg di sonal jëye bu kenn mënul na table xoolal ëpp nga ma juróom ñeenti weer jafte xel buy teey bopp buy metti yaram bu tàng di sekki wàcc di xaacu bëgg a fàggu daanu may nekk sa biir feebar loolu la gaañ baagante doo yoonu hôpital sa fukkeelu weer ba yàlla def may waaj a gane su àdduna yaay booy bëgg a tàggoo dëkku àdduna waaye di tee pour bi àndaa mi teewul dara def ci saafara. te bul xam ci diggante tarafatal ay nii sama ñaata morom gane si ñàkk indi wàlle bakkan dellu ndeysaan santaat yàlla daal war na dëkk jàmm wàllu su ma muñee ree doon ndëkk si yow su ma xiifee yóbbu yee nàmpal ma su ma jooyee nga jaaxle gëmmantu wala méttit xamuloo ndax sama ñàkk mën a wax laagoo yaay sama couche ma terewul ma di la saw tojal gàll

Je Nage Vidéo Yaay Boy signé Buzz ci euh, System ah, déjà disponible sur le marché Je la koy wax instant euh, Sénégal album Buzz Rio album dimension un album de 20 titres ah, euh, Buzz album de « Sen System ah, album bu également mais man que je dire, que album album avant le nom de l'album. album dafa yeneen single ma waaw boo gisee loolu mooy euh, concept la rek parce que benn instant que dama ko génnoon en 2012 mu tombé woon benn benn période bo xam ne euh, réew mi metti woon na quoi toll woon na si ay jafeñ-jafeñ bien vrai que son boobu du mës a dee parce que ba léegi neexul quoi réew mi neexul donc du mës a dee mais instant boobu fale ma génn woon ko bi ma ko génne aussi ma gis mu def li euh, mu def maanaam liggéey mu liggéey ci côté côté public côté consommation et tout bon ma ne ma dama ko prévoir woon pour def ko mais après ma ne léegi naa ko def genre bonus c'est-à-dire naa ko maye quoi parce que bu ma ko defee album dama koy jaay donc naa ko maye gars yi di ko télécharge di ko consommer mu nekk bonus ma publié woon comme quoi ku ko bëgg a jël mun nga ko récupérer ma commencé di ko tas si net bi di ko jox gars yi ñu consommé ko quoi. ok mais am na beneen ah du boobu rek ah. foog naa deux single la woon. waaw seulement que audit mbalax rek moo ci bokk. waaw waaw am na dal seen kaw dal seen kaw mooy mbalax boobu système bi la doon waxal. waaw beneen bi jamonoy mbënd bi aussi lu waral la. lu waral waral waaw lu waral la boobu aussi. bokkul ci album waaw boobu aussi dañ ko may boobu jotuñu ko def vidéo boobu dañ ko defoon single nii rek maye ko quoi parce que période boobu dañ doon laaj lu waral xam nga ñu ñuy def nii quoi et pourtant mérité wuñ ko genre boobu question la bu ñu doon posé suñuy autorité quoi waaw ba léegi réponse bi ñëw na wala ñëwul bon ba léegi ñëwul franchement ñëwul quoi ñëwul tey la gën a est-ce que message bi yegg na si ñoom aussi ah parce que tam loolu la euh, di nga posé benn question mais question bi dadul yegg si ñi mu war a yegg waaw xam nga gars yi aussi benn instant gars yi copie collé lañ quoi parce que yow toujours man damay wax Sénégal dañu am benn problème problème bi sénégalais yi am mooy ñoom mën nañoo folli mais mënuñoo fal quoi malheureusement tey war nañu jéem a xool naka la ñuy falee parce que fal moo gën a original que folli parce que folli tey boo yàq moom boo fekkoon batiment booy daj muy yàq mais pour nga taxawlaat ko ba mu rafet ba nit ki mën ko gis ci bët moo jafe mooy fal bi quoi nañu xool nu ñuy falee ñu wañ ñu bañ ñu bàyyi ay xaalis buñ la joxe mu ne ay non man de pour ma joxe sama carte dañu may jox xaalis yaa ngi jaay sa bopp te xamuloo ko dèjà ñun loolu la ñuy consommer nii péché ñu doon def mooy nit ñi ñëw di ñu jox mënuñ ñu leen di votel nit di ñu jox mënuñ ñuy sol ay xartum wala sol ay t tey loolu la ñuy waaw yooyu moom moom moo kase ni moom la ñuy fay ok muy lunage comme ni ma ko waxee téléspectateurs yi léegi nii ah buzz album bi déjà génn na ah, seen système album bi am na 20 ah, titres ah moom la ñuy gis nii mu nekk album bu am dimension bëri featuring mais damay ñëw ci le nom de l' album seen système yaa ngi bind seen comme Sénégal def six def thème alors mu nekk tamit oh, ok beneen affaire mais buzz li ma bëggoon xam seen système man ma koy njëkk a dégg ak ah, single bi nga xamante ne nii moo gën a def buzz actuellement ci album bi muy audit mbalax boo dégloo album bi dama nan sen système bon ban système lay wax système musique bi lay wax wala système politique parce que sen système nga génnee comme annonce album audit euh, mbalax après do comprendre. waaw système bi système bi en général la quoi. système lepp lépp la quoi système mu la musique bi mbalax bi lepp la. defoo ko sunu système parce que yang ci biir système. waaw xam nga suma né nee scène scène bi bo xolé scène bi li taxone ñu gën ko def scène bi da ci ciy gis sunu parce que bo xolé scène bi ESN la E, e SEN la SEN bi version rouge la da lay jox Sénégal. Sénégal 6 bi dalay jox en chiffre 6 thème manam thème yi ya ci bir album bi amna na 6 thèmes différents yoo xam ne boo ko tënkoon jox adina c'est-à-dire adina liko teunk dafa yomb moy dañu ne penku la xam nga euh, sow xam nga manam est ouest nord sud le quoi mom moko teunk ba pare bo ci bolé asaman ak souf adina la donc thème yoy dama ko déclencher ci bir 6. yooyu ma lay expliquer nii muy Sénégal bi ngay séen muy senn ci système am parce que suñu système dafay senn te instant bi àdduna bi pour mu dox système moo koy doxal lépp loo mën a gis ci àdduna rek système moo koy doxal te système bi bu doxul du jaar yoon donc loolu moo tax ñu siy expliquer si ngay dégg audit mbalax bi si ngay dégg axiru zaman si ngay dégg góor jigéen si ngay dégg lu ko waral si ngay dégg gént gi parce que am benn son bu ma naan dama gént Sénégal mel ni Paris cest à mu nekk en réalité ma yeewu gis Sénégal mel ni Paris moodu moodu yi demoon yëpp dellu si amatul moodu Modou quoi donc yooyu yëpp parce que système bi la quoi benn instant am na nu mu doon normalé rek da ngay gis sa bopp. exemple axiru zaman axiru zaman waaw mooy mooy son bi nga xamante ne boo gisee ma def ko dafa ñëw ci man rêve gént quoi ma gént yàlla jël ma bi ma yàlla jëlee après yóbbu ma ma gis péché yi ma doon def fii ñu xaw ma fa mbugal mbugal yu tar ba pare sànniwaat ma àddina biñ ma sànni àddina ma ne naa profité wax ak waa àddina balaa ñuy dem parce que la ma jot a dund xam naa ko kon nañu waajal suñu bopp euh, concept boobu la ñëwee loolu boo seetee système la. système la mais balaa ñuy génn foofu am naa fa benn question tamit. Mhm. Euh, parce que déglu naa ko axru zaman bi maa ngi ko déglu. Mhm. mais foofu noonu tamit da nga wax ne yaa ngi dégg maa ngi dégg si say péché ba ngay rëccu naan non dañ doon nodd ma topp di déglu mi man ay musique laa doon déglu. ba bi ma ko doon di nga. musique laa doon déglu c'est-à-dire mooy fowukaay bi moo dugg si audit bi. Mhm. par exemple ki nga xam ne danga koy ñëw di ko di ko di ko créer benn morceau tëyëx wala benn morceau taatagin wala benn morceau guutambaay pour moom mu jënd sa yëf maanaam mu bëgg la pour yow nga siw mais yow xalaatuloo li nga def nii ñaata nit la mën a déstabiliser ñaata nit la mën a yàq. donc dans dafa am musique yu araam ak musique yu araamul. no musique en quelque sorte xam nga islam moom moom mosul ànd ci musique. mais dafa am foo xam dañ fa wax wallahu axlam yalla mo xam man su fekkee sama concept musique bi may def moy éveiller conscience la ko jóge pour defar len non amna yaakar yaakaar bis borom bi dina ma fay su fekkee intention quoi liñ wax né yalla intention lay fay yalla yéne lay fay mais nag am na ñom xam ne ñoom na dagan rek bu fekkee da nga def caxagun peut être caxagun gi da nga ci jog pour divertir nit ñi pour bégal nit ñi affaire dama intention bobu nga ci am mais caxagun mais mën nga divertir nit ñi lu dul caxagun mais ana comédien non caxagun mom du divertir personne caxagun au contraire day yàq doomu aadama yi. <laughs> ok parce que man dama ko déglu ma déglu Akhiru Zaman ma ne non attends buzz comment ça fait que moom miy def musique di ne moom ba mu demee Akhiru Zaman si péché yi mu def euh, par exemple yi euh, mu def déglu la nekkee woon affaire dafa muy rëccu loolu tey te pourtant il fait de la musique. waaw parce que parce bu fekkee ne da ngay déglu musique kenn teraw la ko am nga droit nga déglu ko mais bu waxtu jotee bàyyi lépp dem jox borom da ngay arrêté dem déglu parce que da lay delloo ci yàlla mais su fekkee da ngay déglu caxagul la delloo ci yàlla dangay ngay gën a am concentration la preuve ngeen te yeeg yi ngay gis nii bu bu waxtu julli jotee sax il fallait imam bi ñëw wala noddkat bi ñëw ne arrêté leen musique bi. waaw caxagum gu taj dama lay laaj dama lay laaj. Beuz en tant que sénégalais. ah en tant que euh, doomu Rio. caxagum gu taj yow mosoo si dóor sax benn ko non je ah, man naa lax leen man yàlla du sax man contre temps laay fecc <laughs> gars yi dinañ man fecc tubaab laay fecc dama lañ fecc boobu nekk benn ah si seen système ci ah, biir ah, album bi Axiru Zaman ak ban encore am na aussi góor jigéen góor jigéen waaw gis naa boobu tamit nga fi waaw waaw góor waaw waaw góor jigéen am na ci am na aussi wow kong wow kong maanaam dëkk bi nu mu ndoole quoi waaw am na aussi euh, kii euh, nu mu ci xam nga rek bopp bi des fois mooy jaxasoo am na wow Wokong am na aussi Kumbalamba. Euh, Kumbalamba Kumbalamba boo seetee waaw fiefu Rio la quoi parce que Kumbalamba boo seetee mooy li nga xam ne mooy rabu tëngéej bi mais ci biir rabu tëngéej bi aussi. Euh, euh, liggéey na loo xamante ne doomu Tëngéej foo mën a nekk rek da nga war a gëm sa bopp mais malheureusement système bi des fois mooy li ma wax lay fëkk ba yow da ngay jaxasoo quoi donc moo tax moo tax ñu wax ko am na aussi handicap maanaam handicap bu nit ki kese moom moo nekk handicapé. c'est-à-dire boo manqué rek la ñuy wax handicap nit dina sol yére correct nii fekk dafa handicap mentalement il n'est pas prêt parce que yu fi dof lay def donc foofu aussi ñu si siy éveillé conscience su ñooñu pour wan leen ne aussi voilà ñoom dañu war a kii am na aussi euh, benn morceau buy wax ci wàllu bàyyil tux cigarette cigarette xam nga parce que man man dama doon tux dama gis cigarette bi ma ko bàyyee loolu léegi gis naa différence bi mu am moo tax mane ne cigarette man da leer yooyu effectivement voilà yee biir bi voilà gis nga <laughs> donc donc voilà benn instant te man maa moo daan yéeg concert ba may tux su ma yéegee cinq minutes damay sonn donc tey voilà et puis dama daan sentir benn affaire suma pour bi sentiratuma ko donc ma gis ne aussi cigarette day rey day gaañ day escanté donc day wàññi leer ma ne kon naa ci joxe conseil ci côté boobu quoi. muy lu naaj sax mais tamit ah, su ma ñëwee ci album ba léegi mu am benn affaire bu ma remarqué mooy que ne comme wow Kongo euh, ci côté politique bi ah day am ay ci son yoo xamante ne nii euh, genre continuité lay doon quoi presque mun naa ne même thème bilan la ah, même thème bi la jusque nom bi mooy changé mais boo xoolee euh, li ngay revendiquer ci par exemple wow Kongo moom ngay waxaat ci beneen son bi duñu duñu nangu affaire dootuñu nangu genre. waaw c'est xam nga dootuñu nangu boo ko déggee. dañu ne ñun dañuy bañ maanaam foofu ñu waxuñu ak politicien bi mais ñu ngi wax ak population bi ne bu ñu nangooti ñu ñuy fooye ñu ñuy jiite di ñuy juutu xam nga bu ñu nangooti aussi ñu ñu si yooyu quoi leneen li aussi mooy boo seetee comme Wokong Wokong kooku adresse la pour ñi ñuy jiite ñoom la ñuy waxal quoi ne ñoom aussi voilà vice versa la quoi. ok ok mu am ay thèmes yu doy waar yoo xamante ne nii euh, ci euh, ah, bi maa ngi ci biir ñoom tam ñu ngi waajal c'est parce que game bi nu mu demee moo tax kenn gisagu leen mais ñu ngi préparé ay bagages yu doy waar ñu nekk sa biir émission sunu saar dañuy xool tey kan moo nekk ci ma euh, rubrique bu maa ci biir ñu ñëwaat léegi ak buzz mu def mot de la fin wu émission bi let's Yeah, salam alaikum, salam alaikum. I am Fire Flow, the real king from Barney. maa ngi bokkoon si benn crew bu ñuy wax académie rap xam nga ay at man ak sama benn booy wasa booy instant bii nii xam def nañ ay ay yu bëri xam nga ay concours hip hop ay freestyle ay cypher moo yàgg nekk si man man la ma mbedd ma xamee yi di ma hip hop xam kon jot na tey nii ma génn benn produit boo xamante ne Galsen yëpp dañuy xam li xamante ne nii moo nekk si man quoi xam di bëggee de passage sama brodo boobu xamante ne ñoo bokkoon groupe muy académie rap xam nga di bëggee instant bi maa ngi waajal benn mixtape bu ñuy wax amul sikk de king tape xam nga instant bi 9 mai la war a génne officiellement xam nga wax ngeen xaar ko the real king fire to the flow xam infinity positive record ñoo koy defar xam ñoo koy génne ay bomb yu tàng lay doon xam ngeen pare ko xaar ko gaal bu sëb picc bu tale naaw tàgg go may ndëppal sa rab tey may ko sow nangul te toog may def tey show here we go ready sedd day sofe ñu ci mer moos ñoo yey e tufe moos du fi es ay tufe Yéemaan merci beaucoup Faye Flow ah bàyyi ko xel nee na la mixtape bi incha allah dinañ ko am euh, mois de mai euh, gis ngeen ko dem na freestyle bu naaj ah, taxaw na gain bu taxaw la xam naa bientôt gars yi dinañ ko am sur le marché alors gis nga Faye Flow xam nga gain bi. waaw xam naa bu baax Faye booy bu jàmbaar la mooy li ma doon wax sànq rek c'est que xam nga ñun xeex bi mooy ñun hip bi léegi amatuñ dara luñ siy prouver. parce que ku si nekk 90 ba léegi def si ay différence donc da nga war a mën a xàllal yoon bi ni nga koy xàllalee nag mooy euh, seet euh, nouveau talent yi new school yi nga jàppale leen mais jàppale bi mooy dama leen di wax rek nee leen chance bi ngeen am mooy yéen da ngeen ñëw fekk technologie avancée ba bagage loo si bëgg am danga koy am waaw donc am na boy bu jot xam nga ñoom ñëpp ñu ngi fi di def ay différence affaires yu nice di fi installé ay bagage tey booy faaye boobu nga gis noonu Bargny la dëkk mais presque Rufisque département Bargny Bargny département bari Bargny lépp ci la donc day ñëw fi di si job bientôt day génne am na beneen boobu ñuy wax Mr Kenard am na am na waa Hood Boys ñoom am di boo yooyu dañuy def vidéo dañuy def dañuy def graphe dañuy def break en même temps dañuy peur. fu toll nii lan moo des ci euh, projet album bi fu toll nii parce que def def nga caravane avant sortie album bi ba album bi génnee def nga sa concert gars yi wuyu si nañ la jaay nga xam nga dupliqué nga encore fu toll nii si ban phase nga toll. yaa ngi am retour yu positif si album bi. franchement ah, pour wax la maa ngi koy waxtaan ak benn waay barki démb. mu ne ma euh, li yàlla benn grand la quoi maa ngi koy nuyu de passage Euh, li nga yàgg muñ moo la fekk si tey man man mii di wax ak yow defuma sound mais dañ may woo partout di apprécier sound bi man en tant que Cheikh donc euh, góorgóorlu gën a la faay man mii li may jot ci ay appel li may jot ci face bi li may jot feneen ak feneen xaw ma nu mu toll. ay copin wala ñëpp non non ñoo xam ne xamuma leen je te jure internet bi ah billaahi wallaahi ñi ma ciy waxal ñëpp xaw ma leen. xam euh, façon nit bu ne fa ne si région yi fu ne Dakar les étudiants ñëpp dañu may béggee si affaire boobu donc dama naan dama naan kon liggéey la rek liggéey la quoi donc loolu la beneen bi mooy euh, man maa ngi préparé benn soirée live au niveau c'est-à-dire dama bëgg a lo xamné amagul ci hip hop parce que moy li ma rek toujours da ngay jéem a xeex ay affaire moy voilà moy marqué sa empreinte quoi moy teg ben soirée live bo xamné comme tay li ñuy wax grand théâtre man damay créer ben grand théâtre à Rufisque comprendre nga o pa mère mag ndaw ñep ñu ñëw assister soirée bi dugg ko sur invitation ñu def ko direct télé gars yi seetaan ko ñu liggéey ko ak orchestre ben bande orchestre bo xam dañ koy def soirée quoi au niveau donc ñu ngi ci liggéey inshallah bientôt c'est pour le mois de juin À mois de mai benen bi mooy aussi ñu ngi préparer tournée début juillet dañuy bëgg def les 13 régions du Sénégal incha allah bëgg nañ def ay tournée fep presque c'est déjà calé dem rek def affaire yi le quoi le poursuivre pour mon album bi ci biir vingt titres aussi prévoir nañ 15 vidéos ci 15 titres yo xam dañ koy prévoir pour def ko pour parce que album bi dañ bëgg mu dund quatre ans ba cinq ans au moins. ok mën na nek en tout cas ma ngi lay féliciter di la encourager également ci liggéey bu naaj bi alors li mo nekkoon ci émission sunu saa hein. euh, c'est toujours un plaisir de dajé gars melni yow di def ñoom émission di décortiquer un li nga xamante moom moo nekk ci seen support yi muy album que muy lu munti doon en big respect ah ci temps bi nga jël pour liggéey li ba pare topp nga ko ma lay ñaan tam nga bàyyi ko mu am durée de vie ah comme li nga wax noonu noonu gars yi ko gën xam lan moo nekk ci album bi c'est important day am solo maa ngi lay bëggee big respect di bëggee ñëpp di bëggee képp kuy seetaan di kontaan ci Infinity xam nga ku baax artistes yi participer si album bi yëpp maa leen di bëggee vraiment kontaan naa et puis voilà Infinity Positive Report sa kaw sa kanam hip hop sa kaw sa kanam for life bëggee. ok Yéman maa ngi bëggee ah, tey sama cadreur sama caméraman ah, Moussa ah, PM Moussa PM maa ngi koy bëggee eh, maa ngi koy bëggee lu bëree bëri kontaan ci moom merci beaucoup moo cadre lu naaj lii maa ngi koy bëggee lu bëri bëri maa ngi bëggee également lu NS di bëggee toute l' de la LCS la télé passionnément c' était live on se retrouve next week incha ci beneen site